kon coobareem ji fépp la far waaye ni mu fese ci juróom benn yi ak juróom benn yi na mu ca féetalee mbindeef juróom benn ya ko soob bàyyi ci des te mbindeef mënu ca dara dara lu yéemoo yéemu la lu mat a seetlu la ba tax mën naa wax yooyu ñoom sippat juróom benn lañ xadd xaabalat yooyu jàkkaarloo nañu ak fil ixtibaari ci xalam nga ak sitata yeneen juróom benn juróom benn jàkkaar juróom benn muy fukk ñaar te dañoo safaanoo nga xam ne moom jëmm ji mënta boole meloo yaar yëpp day amee lee rek ñàkk lee waaye mënta boole yaar yëpp coobare moom ñëw nag jox ko lay bàyyi lee te du ca mën dara ñu tàmbali ko wax yooyu ñoom nag wujjoo bi moo di ak am jaay suñ gu fi aji dagan mustabdalan mbir mu lu ñu wootee min xadamin ci ñàkk mu jaw wasin gu juguñ daganal fal tànqi la na nga xellu xam nga mbindee fii mu nekk nii jaay fekk la mën naa mën naa ñàkk coobar yàlla mënuñu nag amal la ko soob ñàkk la ko soob dara mënta boole am ak ñàkk dara day am rek mbaa mu ñàkk bu dee lu am coobar yàlla moo ko amal bu dee lu ñàkk coobar yàlla moo ko ñàkkal gis nga am ak ñàkk ñaari safaan lañ coobare moom ñëw amal la ko soob ñàkk la ko soob kon yaar nga ngi jàkkaarloo waxee ko saa niki nii miqdaaruhu kemam ba almaxsuus ba di buñ jagleel min si waaxu ci budul moom min saa iri miqdaarin ci mboolem ab kem ab tolluwaay daal jukki na bopp ñu neef na ko ba tey xam nga mbindeef mën naa toll nii mën naa toll nii nit ki mën naa rëy mën naa tuuti coobare yàlla mooy ñëw nag jox ko rëy bàyyi tuuti mbaa mu jox ko tuuti bàyyi rëy dayo boo gis rek mbindeef am na ko rek mën a naan ba ca des coobare ñëw na jox ko dayo bee bàyyi ba ca des wa sifatun ak aw melo max soo sat wu di wuñ jagleel mus tab dalat wu di wuñu wattee mi saayi bi sifaati ci mboole melo yi aydan ba tey fànqi la na nga xellu ba tey mbindeef melo yoo gis melo yoo ko rek am na wu safaana woowa te mën na koo mel la ko jox melo yi bàyyi wee nag coobare ji rek la coobare yàlla mooy ñëw rek jox ko melo yi bàyyi melo safaanoog moom su fekkee dafa bindoo xees mënoon naa ñuul bu fekkee dafa ñuul mënoon naa xees bu fekkee dafa gudd mënoon naa gàtt bu fekkee dafa gàtt mënoon naa gudd melo yi li ñuy bari bari melo yi ci mbindeef ma woon rek coobare yàlla ko jox bàyyi melo yi ca des te xel na nga woon na moom bàyyi melo woo jël weneen waaye coobare mooy dikk jox ko wee bàyyi wale woo jamono ak jamono ba almaxsuus ba di buñ jagleel aydan ba tey ba daloon mbir muy ak woot min saa yu as mu ci mboolem jamono yi fii maa ci la nga xam ne xajalaa feeñ na ba tey mbindeef mën naa feeñ jamono sàngam mën naa feeñ jamono sàngam ci xel rek moom la koy féetale ci jenn jamono mu feeñ ca coobara rek la suñ maam ya seen jamono yàlla na ko jagleel ñu ñu nekk fii suñ jamono yàlla na ko jagleel suñu sët ak suñu sëtaat jamono ja ñuy feeñ yàlla na ko jagleel ah coobara yàlla daal moom mooy ñëw ne mbindeef mi jamono sàngam mooy sa jamono te mën naa amee jeneen jamono ji bokk tudd yooyu la waaye daal lay feeñal mbindeef mi ci jamono ji bàyyi jeneen coobare rek la jamono ji mu feeñ jeneen nag am na jeneen ji mënoon a feeña te feeñu ca kon coobare moo ko jagleel ji bàyyi ja ca des waxe ak saa niki ni makaanu ba bérébam ba almaxsuus ba di buñ jagleel min saa il am ku ni ci mboolem béréb yi jam yi xan mboole seen yaa fàttali nañu ay ji xellu ba tey mbindeef moo gis du ñàkk béréb bu ko yàlla dénk mu nekk fa mbindeef mëntu nekk ci béréb yëpp yàlla mënut loolu léegi nag mbindeef mu ne la ko bàyyi ci béréb te mën te mën naa nekk ci beneen coobare yàlla coobare yàlla moo lay bàyyi ci béréb bii te mën ngaa nekk ci beneen kon mbindeef mu ne béréb ba mu nekk rek mën naa nekk ci beneen la ko yemale ci béréb boobee jéggiwu ko nekk ci beneen ba tey coobare la mu des nag wa jëfatun ak ak wàll max soosin ko digguñ jagleel ay doon ba tey badalan mbir mi awoot min saa il jihaati ci mboolem wàll yi hinda man fakk nga xam ne naqa la doxal na mbindeef foo ko fekk day am wet bu mu féete mën laa nekk ci wet yëpp genn wet rek nga mën a féete la la féete la ci wet gee bàyyi wet ci des nag ba tey coobare yàlla coobare yàlla mooy ñëw féete la mbindeef ci wet bàyyi wet ci des kon boo ko wàññee fi mu toll juróom-benn far na fee juróom-benn far na fee coobare yàlla mooy ñëw nag féete la mbindeef ci kenn ci juróom-benn yi bàyyi ci des am na ko boole woon ci almumkinaatul mutaqaabilaatu wujuduna wal xadamu sifaatu defoon ko ci amkinatun asminatun jihaatu kadal maqaadiiru rawastiqaatu faslun li ab dog la fil uluhiyati ci ab nguur wala nga ne ci nekk di allah wama ak la nga xam ne baadaha nekk na ci gannaawam ñaar fukki melo yi nga wàññi ba weesu ko dañ koy teqaliwaat ci biir yu ci ne ñu bari leen am nu ñu leen tuddee mu tàmbalee ci tumal uluhiyatu topp al uluhiyatu toorafu def na ko xam min haa mu bokk ci ñaar fukki melo yooyu xadaduhaa limam ba ayun fukk la ak benn la daaman fakk nga xam ne yaarifu dana xam aani danaa jublu wujoodan ak am xidaman akuk jiitu tuma baqaa an topp ak des tuma muxaalafatahoo topp wuutanteem gaag maa la nga xam ne xalaqa bind na ko tuma qiyaaman topp ak taxaw mbaa nga ne topp ak doylu ci boppam tuma samxan topp dégg wa basaran ak gis tuma kalaaman topp wax jàlla joj màgg na xan xasril fikkari walis takkuk xalaat ya wa kaw na xoo akuk nekkam ay dan ba tey samixan di aji dégg wa basiran te aji gis wa mutakalliman te aji wax bi maa ci la nga xam ne jadiirun aji yeyoo la bihi ca moom al uluhiyatu mooy melo yi nga xam ne ku mu nekkul ci moom rek doo allah allah mooy jëmm ju sell ji nga xam ne moom day aajowowul jëm ci kenn mbaa lenn mbaa fenn te moom nag kenn ku ne ak lenn lu ne ak fenn fu ne aajowoo na jëm si ci moom kenn mbaa lenn mbaa fenn mënu koo wan gannaaw kooku mooy allah melo yàkka tax a nekk nag allah nga xam ne bu ci amutoon du nekk allah fukki melo la ak benn ñu leen di tudde al uluhiyatu moo di al wujudu al qidamu al baqaa'u مخالفة الخلق القيام بالنفس السمع البصر الكلام سكو دفه نك يتمل يي مجي wax bi السمع البصر الكلام ku ci ne nga génne ba jàkkaarloog moom di maanawiya kon mooy samir ak basir ak mutakallim lii boo ko boolee muy fukki melo ak benn yoo xam ne ñoom la ñuy tuddee al uluhiyatu tumma rububiyatu topp ar rububiyatu aydan ba tey taxruju dana génne min haadihi sifaati ci yile melo adduha ab limam wajun juróom-ñeent la waaw de juróom-benn jiim di ñett ñaar fukki melo yi nga waxoon ci wàllu suñu borom ni mënu caa ñàkk ndax day meloy mat am na ci yu ñuy tudde arrububiyatu arrabb mooy ki nga xam ne moo sàkk maanaam moo amal mbindeef te moo koy toppatoo fu mbiram dale ba fa muy yem kooku mooy arrabb melo yi tax nag ñu ne yàlla mooy arrabu yooyu la ñu tuddee arruboo bi yetu mu ne nag juróom ñeent lañu wax yi ñoom qudratun mooy kàttan iraadatun ak nameel kasaniki nii ilmun xam xayaatun ak dund raax yi na nga sàmmoonteeg zalika loolee waza ak lii wa kawnu dil jalaali ak nekkuk borom màgg ga qaadiran di aji attan muriidan tey aji namm wa aaliman tey aji xam xayyan tey aji dund wa kawnuhu aku nekkam waxidan di aji wet juróom-yeenti melo yi nga xam ne ñoo di arrububiyatu yomb naa waññi ndax qudratu iradatu xelmu xayaatu yent la yoo xam ne dañoo bokk ci almaani nga xam ne benn bu ci ne da nga cee génne ba jàkkaarloog moom di maanawiyatu nga xam ne qudratu xaadir moom la jàkkaar lool iradatu murid ilmun aalim xayaatun xayyu kon boo waññee al qudratu al iradatu al ilmu al xayaatu ba noppi ne al qaadiru al muridu al aalimu al xayu day nekk juróom-ñett ba koy juróom-ñeenteel nag mooy yàlla nekk di kenn rek nga xam ne day wéet ci jëmm wéet ci melo wéet ci jëf muy al waxdaaniyatu ba yàlla nekk di kenn rek juróom-ñeent yi moom la ñuy tuddee arrububiyatu waa dut na nga limaale huna fii aydan ba tey shuruutal faahili sarti aji def tamaaniyan ñuy juróom-ñett inda sanoosi fa as sanoosi alxaaqili kay aji xellu ay li mu ci namm qudratan kàttan iraadatan ak nameel ilman ak xam xayaatan ak dund wa kaw naxoo aku nekkam qaadira kulli mumkinaatin di aji dogal yépp mbindeef man nga ne di aji àttan yépp mbindeef wa kaw naxoo aku nekkam aydan ba tey muridan di aji namm aaliman te aji xam wa kaw naxoo aku nekkam xayyan di aji dund taxalaa kawe na daa iman ci lu sax wala daa iman di aji sax ba tey ci ñaar fukki melo yi nga waxoon ci wàllu yàlla da ca am juróom-ñett yoo xam ne dañ leen di tuddee shurutul faaxil maanaam balaa kenn mën a def dara dara dara faaw juróom-ñetti melo yi nekk ci moom ñoom nag yomb nañoo wàññi ndax boo wàññee kàttan teg ca coobare teg ca xam teg ca dund rek muy xudratu iraadatu xilmu xayaatu ku nekk da ngay génne melo ba jàkkaarloog moom te bokk ca maanawiya loolu mooy xudratu qaadir la jàkkaarlool iraadatu muriid xilmu aalim la jàkkaarlool xayaatun xayun kon mën nga ne al qudratu al iraadatu al ilmu al xayaatu ak al qaadiru al muriidu al aalimu al xayu juróom-ñetti melo yi ñoom la ñuy tuddee shuruutul faa'il amma sifaatu ndaal melo ya li kamaalillaahi ñeel matu yàlla fa uddidat limeef na leen sittan ñu juróom benn bilash ci baaxin ci lu lënt wax yee ñoom samhun mooy samhun bii firi dégg basarun bii firi gis tuma kalaamun topp kalaam wax maxallët yi ànd ya nga xam ne talaazamat taqoonte nañu ak ñoom xindal imaami fa ilimaan ba ba tey ci ñaar fukki melo yi da ciy am yu ñuy tuddee sifaatul kamaal meloy mat ndax day melo yoo xam ne bu leen suñu boroom melowoo wutoon day melowoo seeni safaan te seeni safaan dafa nekk ay manqué ñoom nag juróom benn lañu ndax dafa am yett yi bokk ci mahaañ yi di ay melo muy samhun dégg ak basar ak kalaam xam nga ne ku andiwut ak dégg tëx moo fay sës ku andiwul gis gumba moo fay sës ku amewul ak wax lu moo fay sës soo wàññee nag samhu basar kalaam ku nekk da ngay indi melo bu mu jàkkaarlool samhu jàkkaarloog as samion basar al basir kalaam mutakallim kon ci gàttal mën nga ne sifaatu kamalillahi taala daal mooy as samhu al basaru ak alkalaamu bu yett nga wàññiwaale assamiu al basiru al mutakallimu ñuy juróom benn faslun li ab dog la fi mutaallaqi sifaati ci ajukaayu melo ya i'lam xamal bi anna kulla di sifaati ci naka mboolem yi lay melo laxaa ñeel na leen taalluqun ak aju siwal xayaati ndare dund waxwa moom taalluq xalaamaa ci kaw li nga xam ne naqaluuhu toxal nañu ko waaridan mbir muy aju rot mbaa mbir muy aju dikk xul waxal ne talabu sifati mooy sàkkuk melowa amran mbir zaidan muy aji yokku min ba'di ma tabata ca gannaaw ba mu saxee fi maxallihaa ci jëmmam ja sabata boobu nag sabatat moo doon cosaan mu dellu ci asifatu waaye bu dee ci way daañu dagg taaji baaxoo nekk foofu fax faz na nga wattu taxalluqa sifaati ajug melo ya kullihaa mboole seen ñaar fukki melo yi nga wax ne dafa sax ci wàllu yàlla la ne ñoom ñëpp ñoo am taxalluq ba mu des xayaatu mooy melo yi ba mu saxee ci jëmm ja faaw mu jàll am fu mu feeñe mbaa am fu mu jeexitale ci misaal xam nga ne xam-xam bu nekkee ci jëmm faaw mu jàll ca lañu xam déem rek ci jëmm ja waaye faaw mu jàll am lu ñu xam xam-xam bu ne du ñàkk lu ñu xam wala nga misaale ko dégg dégg bu nekkee ci jëmm faaw rek mu jàll ca la ñuy dégg ak gis gis itam faaw mu jàll ca la ñuy gis bu dee jeexit nag mën nga koo misaale kàttan xam nga kàttanu yàlla gi ak coobareem ji ñoo tax mbindeef a am bu dee mbindeef mu ñàkk itam ci coobareem ak kàttanam moo tax loola bañ a am kon taxaluq mooy melo yi ba mu saxee ca jëmm ja ba noppi dem rekk ca jëmm ja ne nemm waaye faaw am fu mu jàll feeñ fa mbaa am fu mu jàll def fa jeexit mu ne nag mboolem melo yépp yépp am nañ taxaluq boobu nga wax ba mu des alxayaatu melow alxayaat dund rek moo ci amut taalluq nekkoon nag déglul mu waxal la melo yi wenn wu ci ne fa mu aju qudratuhu kàttanam ga tummal iraadatu topp nameel ga maxan boole seen taallaqa aju nañu bil mumkinaati ci mbindeef ya jumaa mboole seen al qudratu ak al iraadatu yaari melo la yoo xam ne dañoo aju ci lépp lu mën a am ndax li mën a am day ñaari xaaj la mën a am te am ak la mën a am te amut lu ci nekk rek coobare yàlla ak kàttanam feeñ na ca moo tax mu ne wal mumkinaatu mbindeef yi xad atat dikk nañu xismay ni mbir mu ñuy ñaari xaaj mawjoo daxaa la am ca ñoom wal xaq sa ak safaan ba duuna may na ci lul fen mbindeef yi te buñ ko waxee rek mooy lépp loo xam ne lu mën a am la ñaari xaaj la la mën a am te am boole ca ak la mën a am te yàlla amalu ko mu ñàkk li mu ci mën doon rek kàttanam ak coobareem la ca jëfe fal mumkinu aji jàppandi ja wala nga ne mbindeef ma almaw joodu ma di muy fekk wala nga ne ma am xossi ma seddaleef na ko jiiman mbir mu muy ñetti xaaj maadin aji wéy wa aatin ak aji dikk tumma xaalun topp lu teew xulima lool xameef na ko kamitlil aji daadi niki kem maam ya wakal abnaay ak niki doom ya waka xudurina ak niki sunug teew bila xafaa in ci lu nëbbu waka samaay ak niki asamaan wal araadi ak suuf ya wal qalami ak xalima ga wal xarshi ak xaras wal kursi yi ak kursi yi laatan sa bul fàtte alxisama cër ya wala séddale ya li nga xam ne mën naa am te yàlla amal ko boole ci ñetti xaaj la am na ci loo xam ne am na ba jàll ni ki sunuy maam ak sunuy maamaat am na ci loo xam ne fii mu nekk nii mi ngi fi di teew mel ni ñi toog ak ni ki asamaan seeg suuf seeg allahul mahfuus ak xalima ga ak aras ak kursi yoog yooyu yëpp misaalum li yàlla amal la te mu nekk fi jógu fi ak nag luy bëgg a dikk luy bëgg a dikk nag mooy lu mel ne sunuy sët ak sunuy sëtaat ak mboolem yi nga xam ne yàlla dogal na nar leen a amal te fii mu nekk nii amaguñu wala mumkinu mbindeef ma wala nga ne aji jàppandi ja alma adoomu jariñu ñàkk ay don ba tey xadd xusima séddaleef na ko talaasat aqsaami ñetti xaaj xinda man fa ka nga xam ne xalima xam na imaanu kaafirin gëmuk ab yéefar wa kufurul muslimi ak weddik ab julit taalisuha aj ñetteel seen alwala du mooy doom min diin xuq mi bàyyi ko ci boroomuk njërmeel njërmeel mooy jësir maanaam di bañ a am doom li nga xam ne mënoon naa am waaye yàlla amalu ko ci kaw coobareem ak kàttanam ñetti xaaj la benn bi mooy koo xam ne daa weddi yàlla ci sax ca weddi ga ba faatu kooku ba muy dund xel nangu woon na mu génn ca kéefar ga ñëw ci gëm yàlla waaye nag kéefar googee ci la ñuy rekk ba faatu kon gëm ga nga xam ne mënoon na ko am waaye yàlla dugal ko ci moom benn ngoog ci yi mën a am tem soobi yàlla amalu ko ba ca topp mooy safaan ba ku gëm yàlla sax ca gëm nga ba faatu ci gëm nga xel nangu woon na ba mu faatoogut mu wëlbatiku tubbi dem ci kéefër kon nag kéefër ga nga xam ne mën naa am ca moom te amu ca ba mu faatu ci gëm yàlla kon kéefër ga mën naa am te yàlla amalu ko ñetteel bi nag mooy koo xam ne kii buñ ko dee seet lay tax am doom muy jote ci diggante góor a jigéen ma ngi koy def te du am doom mukk xel nangu woon na yàlla amale ci ku mel noonu doom ni mu ko amale ci ñu baree bare wa mattala misaale na alxismay ni ñaari xaaj na jut taw fiixi boroom dëppaleeg yàlla ga bi ka ab yi jaxlin ci ku mel ne ki ab yi jaxlin wa kas siddiqi ak ne ki abubakar ni siddiq yaaru jëkk yi mooy dund ci kéefar ba dee ca te xel nangu woon na mu wëlbatiku gëm ñaareel bi mooy dund ci njulit ba dee ca te xel nangu woon na mu dee ci kéefar yooyu yaar ne dañ koy misaale abu jahl dund ca kéefar ga ba dee ca ak abu bakarin siddiq dund ca gëm ga ba faatu ca njërmeel gi muy jaasir gi moom loo jàkkaar lool la xeet yu bare bari am góor ak jigéen da nga ca di gis jigéen joo xam ne du am doom te fa ñuy jaar bay ami doom maa ngi koy def yett yi nga xam ne bu dee ci gis-gisu xel rek mënoon nañoo am waaye nag amuñu dañuy jàpp ne kàttanu yàlla ak coobare yàlla aju na ca ndax mënoon nañoo am da koo soob nag mu bañ leen a amal moo tax mu ne li ànd foo ngir naka yàlla jàll màgg na xadara àttanoon na xalaa di ci yile tuma araada toog mu namm kaw naxaa seenu nekk an laa turaa bu deefu leen gis yett yi nee na boo ko dee seet lu ci nekk mën naa am waaye nag coobare yàlla ak kàttanam daa aju ci bañ leen a amal mu daal leen di bañ a amal waa miq na nga aj alxilma ilm wal kalaama ak kalaam yaa nabilan yow aji xellu bi waa jibin ci aji war wa jaa isin ak aji dagan wa mustaxilin ak aji jomb day jàll ci wax melawu ne fan la aju mu ne alxilmu ak alkalaam moom fépp fépp lañu aju bàyyiwuñu dara dara dara ndax waajib ak jaayis ak mustahil moom ëmb na lépp lépp waajib mooy loo xam ne ak amam mënta ñàkk mustahil mooy lu mënta am jaayis mooy loo xam ne mën naa am mën naa ñàkk nan ko teqale woon ci gannaaw bu ko defee nag xam-xamu yàlla bi ak waxam ji moom aju na ci yooyu yépp yépp yépp wa samhu samhu wal basaru ak basar bi dégg ak gis xadd taallaqa aju nañu bi kulli mawjudin ci lépp lu am la daaman fa ka nga xam ne xàqaqa dëggal na dégg ak gis moom ci lu am rekk la mën a aju ndax lu amut mëneesu koo dégg mëneesu koo gis wa qasamoo séddale nañu almawjooda lañu fekk mbaa nga ne la am rekk boo bëggee neexal piri mi lil xismay ni jëm ci ñaari xaaj bii xidamin boromuk jiitu wal xagsi ak safaan ba duuna may ni ci dul fen amal qadiimu ndaal aji jiitu ja faka zaatin mi ngi mel ne ki jëmm wa sifaatin ak ay melo laxoo ñeel yàlla wa asmaayin ak ay tur kazaniki nii xaala la waxe asiqaatu ñeen ñi dëgërloo ca ñoom bindeef nga waxan fee ne ñaari xaaj la léegi nag moom da ngay wax rek ne lépp lu am ba yàlla duggaale ci biir ñaari xaaj la benn xaaj bi mooy li nga xam ne dalewul fenn fenn fenn loolu nag mooy jëmmi yàlla ji ak meloom yi ak turam yi lu bokkut ak loolu nag mooy xaaj ba ca des nga xam ne dafa sosu am na fa mu dale loolu nga xam ne moo sosu am fa mu dale nag moom it dafa soppikuwaat ñetti xaaj moom lay wax naa xaadisuhu aji sosoom ja talaasat ñett la maadin aji wey wa aatin ak aji dikk baynahuma yooyu nekk na seen diggante xaalul lu teew ka ardin ni ki suuf wa nabaatin ak gàncax li sosu am fu mu dale ñetti xaaj la am na ci loo xam ne wéy na ni ki yi nga xam yépp ñu wéy ni ki sun maam yaag sun maamaat ya ak lu teew lu teew moom mi ngi mel ne suuf sii ak gàncax gi ak nun ñi ak loo xam ne nag luy ñëw la te ñëwagut mooy yu bari yi nga xam ci nga xamee ne yàlla amalagu ko te ci coobareem dana ko amal ni ki nan ko misaale woon sunuy sët ak sunuy sëtaat xaqiqatul ilmi dëgg-dëggi xam bi xawli man ci waxi ka nga xam ne salafa jiitu na sifatun aw melo la woo xam ne almaalumu la ñuy xam kul waxal ne in kashafa wuññikoo na maanaam murikoo na bihaa ca moom xalal lësi ca anam ga nga xam ne huwa moom bihi nekk na ca in kishaafan ak muriku mbaa nga ne ak wuññiku lam yaxtamil bokk jëmtaluut naqsan genn manki wala xilaafan du caagéenu genn wuute bi ay wajhin ci gumu ci ak anam min wujuhin ci ay anam tooxalu yooyu def na leen xellu fa din na nga diinewoo betaaxatin ci ak topp tu fab kon def na la yool yaa rajulu yow waa ji day xam le dëgg-dëgg yi alxilmu xam-xam bi nga waxoon ne bokk na ci melo yi sax ci wàllu yàlla mu ne la day xam-xam bi ñuy wax day mooy lenn lu ne yàlla xame ko canam doone xamin wu mat sëkk-sëkk woo xam ne mënu faa ëpp mënu faa yées ci anam googu mën di wëlbatee rek yàlla xame na ko na mu doone bu wér a wér kon boo nee lenn lu ne yàlla xam na ko te na mu doone la ko xame xam gu mankiwul dara dara noo ko mën di wëlbatee rek xame na ko na mu doone du am lu see jamtalu ci mànk ci xamam googee mbaa lu ci yokku ndax lu ci yokku mënta am di daal di bëgg a nekk ak réer xamiin wu mel nii mooy xamiinu yàlla ku bokkut ak moom nag mooy seet la ko soob ci xam-xamam boobu rek mu xéewale la ko ndegam nag alxilmu xam